acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk nat bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat lii di kontaan teg mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne ni dama laa dalal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax ba ñu ñuy topp saa su nekk mën cee jëlee njëriñ lu kawe seen jort acca nee naa leen ki may présenté ti doonat koo xamante ni gan la ci site bi xanaa gëj fi lañ mën a wax kooku mooy Serigne Saliou Mbacke borom jurul tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam yaatal te waaye dinañ waxtaan ci xew-xewu jamono ñu ko defee saa su nekk lii lépp nag laata may ñëw dugg sama biir programme kilifa gi damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bismillah aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulillahi wa kafa wassalaatu wassalaamu ala rasulihi nabihi lmustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istafa rabbi sarax li sadri wa yazir li amri wa ahlul xuqdatun min lisaani yafqahu qawli wajxal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arsida ñu ngi leen di delloo nuyoo euh, deux cent vingt et un mhm. peuple mhm. di leen ziar bu baax a baax sama site la waaye gëj naa fi <laughs> waaye liggéeyee temps bi rek moo ko mayut mhm. ndax yéen moom xam ngeen sama liggéey lu wér waaw moo tax waaye ñu ngi gërëm ñëpp di sant di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek mooy liy jariñ macha allah wax lépp loo xam ne incha allahu rabbi lu neex yàlla la ak luy jëriñ askan wi mu ko jërëjëf jërëjëf sëriñ Saliou Mbacke borom julul ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seen yooyu seet yooyu tànd ak dal ñu ngi ci kontaan bu baax acca comme ni ma koy def ak say naataango noonu laa ko fas yéene su nekk mun cee jëlee njëriñ lu kawe seen njort dinañ waxtaan lu toll ci juróom-ñaari ponk waaye juróom-ñaari ponk yooyu dinaa ko xaaj ñaari ñaan bi nga xam ne yaa ngi ko nit ñi di ci gis seen bopp résultat yu am na lu mu la ci xéwalee to kenn ko ndax ñu ngi koy acca daam foo xam ne dinañ ci waxtaan mu bokk ci xew-xewu jamono ni ma koy defee saa su nekk mu di actualité dinañ waxtaan ci déclaration bi nga xam ne président Ousmane Sonko bëgg na koo def 16 ci kanam waaye ndax euh, lan la bëgg a wax dinañ ci waxtaan waaye lan la ko mën a jural ndax euh, euh, ministère de la justice na ko ko nangu loolu dinañ ci waxtaan bu baax a baax ma kilifa gi ak élection yi ni ñuy doxe ji mm-hmm. dinañ waxtaan ci laam ji dox ci diggante Lac de Guiers 2 ak su ngeen bëggee xam kiy daan topp leen vidéo ba mu jeex tey ngeen dégg fi révélation yu am solo ñu jëmale ko ci actualité aja ñu jaare ko ci yoon wi niñ ko defee saa su nekk laata ñuy ñëw ci li nga xam ne so moneen la mu di produit dama mhm. bëgg ñu dellusiwaat ci seet bi xam ne yaa ngi koy def di def listixaar lépp loo xam ne daal nit ki bëgg na ko mhm. euh, xam ci dara balaa moo dugg rek ci laa bëgg ñu tàmbalee mu di seet mhm. waaw ñu ngi lay gërëm di la seet moom dafa nekk loo xam ne euh, lu baax la ci doomu adama dana tax nit ki di xam fan la jëm <laughs> dana leeral nit ki fan la war a teg tànkam ak mhm. yan la war a moytu waaw ndax seet moom loo rek lay jariñ mhm. waaw wax nit ki li nga xam ne mu ngi ci kanamam mu xam fan lay teg tànkam xam lan la war a moytu mhm. ak ci lan la war a mooy jas nag tigi rek xam nit ki lan moo ko dal saytu ko ba xam saytu ko ba xam ko ba xam lan moo ko dal waaw ba xam li nekk ci yaramam euh, ci kàttanu yàlla nga dindil ko ko ah. aar ko mooy protection mooy moom li naan kaaraange ba dara dootu ko mën yàqal <laughs> mhm. xam ne yoonam dina leer nañ lépp lum dëgmal mhm. euh, mu am bu ci kàttanu yàlla yàlla dogal mu am mhm. dara dugg ko yàqal muy kawaaki bu seytaani yeeg waaw euh, nit ñi nga xam ne yàlla da leen a bind seen xol ñiy xeex dafa am ñoo xam ne ay xeexkat la ñoom dañuy def rek yàlla da leen a bindee noonu nga portees ko ba dara du ko yàqal ci ci ci kàttanu yàlla loolu yàlla dañuy seet seet nag ñu ngi koy defee ci xilmu nujum mhm. xam-xamu biddiw ah. ak xilmu ram la mooy man baaxam solu ram mhm. te seet gi ñuy seet moom boroom xam yëpp maase nañ ci ne lu àtti jamono la mhm. te dañ la wax li nga xam ne mi ngi yow weesu nga ko waaw ak li nga xam ne ñëwagul ak li nga xam ne yaa ngi koy dund nii waaw lu ñëwagul nag yàlla subhaanahu wa taala rek laa rek moo ko xam waaw waaye dana ko xamal ñenn ci ay jaamam lu wér waaw tarkal la waaye nag seet gi nekkul loo xam ne lu ñuy làmmatu la nekkul loo xam ne lu ñuy donn lu ñuy jàng la dañ koy jàng lu am solo xel ma nujum koy jàng mm-hmm. dañuy jàng lépp loo xam ne bari na nag li ñuy donn mm-hmm. loolu moom ku ne xam na ko mm-hmm. waaye nag seet gi li ñuy jàng la lasraar moom lu ñu jàng la waaw lu la am na lu ñu ci donn nag yoo xam ne euh, say waajur ñoo la koy jox wala ñenn say maam waaw ku ne ku ne sëtu Serigne Bamba Sall. Mhm. mi ñu tuddee Serigne Touba. waaw mi jàngal Maam Mor Anta Sali. Mhm. ku xam na ne. Mhm. ay boroomi xam-xam lañ ci Saalum lu wër waaw waaw. Eh, xam-xamu ñuul bu ne. am nañ ko xam-xamu leer bu ne am nañ ko. macha allah muy nuuraaniw ak zulmaaniw. tarkalla samay nijaay ak samay maam yooyu luñ ma dut jox amul. waaye man moom yàlla daa dogal ne lu leer rek. Ah. mooy mooy nuuraaniw ci lay dox. zulmaaniw du ma ko utiliser xanaa lu dagan. tarkal la xam ne lu mel ni comme fas gi ñu wax nii rek xam ne fasu amig daal la mhm, dañ koy joxe yooyu mhm. comme ñi leeral tuuti ci loolu waaye seet moom ci anam yooyu li ñu koy defee mooy mhm. xelmu nujum mooy xam-xamu biddiw ak xelmu ram la waaw man baa nga lu ram la ci la ci leen di seetee listixaar tamit ñu ngi koy defee ci alxuraan ak comme ni ko addis indee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy defal nit listixaar dañuy defal nit seet waaye lépp lu dagan la dara xaraamu ci ndax man sama kon mu ngoog ak sunna alquran ak sunna am na solo jërëjëf jërëjëf fukk ne Serigne saaliyu Mbacke sa xel dina jëm ci euh, borom njulul waaye di sa xel dina jëm ci borom ñetti kabine yi nga xam ne benn bay mu ngi euh, Touba benn baa ngi Dakar waaye benn baa ngi Mbour te benn bu mm-hmm. nekk dinaa ñëw ci kanam jox la seen numéro téléphone waaye borom njulul it bëggoon naa xam lan lay wund ci euh, li muy wund feebar yi nga xam ne yaa ngi ko ci faj dégg naa nag fi mu ne nii moom mooy tojati réew mi 15 maladies yoo xam ne da koy faj fukki feebar ak juróom lay faj. waaw borom njulul moom li muy faj bari na yàlla dogal na am leen cabinet Touba. am neen cabinet Dakar. Dakar am neen cabinet Mbour. bëgg neen ko am feneen yaatal ko incha allah. te ñu ngi ci liggéey bu baax. macha allah mais garab bi li li solos garab gi. moo solo mooy. képp ku ko jël. waaw maam day gis résultat. ba noppi boole laa ay xaritam. lu wér te ay seer yu baree ngi mhm. te mën naa ci suñu waxee ba pare ci borom juróom dinaa ci teg. ay ojo ngeen dégg. Mhm. waaw ndax audio yi ñuy teg tamit seen borom dañu ko permettre. Mhm. waaye borom njurul mhm. dana faj quinze maladies. waaw dana faj l'impuissance sexuelle muy wàllu ngóora ak ki nga xam dafa dem sax ba tële. Mhm. da koy dindi. macha allah waaw ak ki nga xam ne awram day nooy. Mhm. wala muy ras di tuuti. <laughs> dana dindi ndoxum siti. émorite ndoxam siti nag bi bi nëbb. ak bi feeñ yëpp da koy dindi. macha allah émorite noonu. te nit da wax ni la daa am émorite. waaw fekk ne ndox siti fu ne ma mënoo am hémorroïde te amoo ndoxu siti ah. parce que mooy créer hémorroïde créer hémorroïde ñëw créer ballottement day faj ndoxum siti ah. hémorroïde maanaam day faj limpissage sexuel waaw ngóor a nu mën a mel da faj macha allah hmm. boo doon sëy une de temps waaw soxna moom mooy sonn waaye yow du sonn tarkalla waaw kon li muy faj ñi lima leen ko mooy hmm. ndoxum siti ak limpissage sexuel hémorroïde ballottement ba di lëndëm hmm. biir buy metti ndigg luy metti tànk yuy metti tànk yuy xar <sighs> estomac insomnie sinusite fatigue générale diabète tension prostate infection <laughs> mhm. yooyu yëpp da koy dindi waaw mu kook lay dindi mhm. kon mu kook jërëjëf nee naa leen amut fenn ku ko soxla da ngay ñëw ci Serigne Saliou Mbacke kooku mooy borom julul a ci moom moo euh, waaw mu ngi noonu yëkkati ci benn biteel ñu seen biteel bi moo nekk noonu ngeen di seen traitement bi waaw aca ci cabinet yi nit dinaa ci ñëw cabinet bi nga xam ne moo nekk li mooy traitement bi waaw waaw maanaam lii boo ko jëlee mhm. jàngoro bi du mën a yàgg ci yow waaw incha allah rabbi yàlla sunu borom mën na la ci defal tawfeex am na ñu koy jël nag waaw mu des ñoom tuuti ñu dolliwaat mu jeex mhm. waaye am na ñoo xam ne si traitement bi rek la ñuy yem mu jeex tarkat la waaye damay wax ni képp ku jël sax benn bidéo bu ndaw bi da nga ñëw jël si bii mhm. te kenn du la ko wax ndax xam lu tax garab bi amul benn nit bu koy naan te gis ci résultat tarkal la wallaay lazim am lu wér te fa ni nii nañ ko fekkee ci cabinet yi du mhm. xeeñ du yàqu du def dara boo ko fi tegoon 4 mois mhm. du xeeñ du yàqu nii lay nekkee ci cabinet yi soxlu nga koy dugal ci frigo waaw waaw soxlu nga koy def ci dara kon mu goog mu ngoog aca njëriñ la bëri na aca mën ngeen koo fekk ci goxi fasantikoo yi lu ci mel ni Dakar soo fa demee am na cabinet bu fa nekk waaye su ngeen soxla numéro bi da ngeen di def 77 180 19 93 wala ngeen dem lu ci mel ni Touba foofu da ngay def 78 578 68 40 wala nga dem lu ci mel ni Mbour Géej foofu mën ngaa def 76 611 33 60 jërëjëf atie ñu dox ba léegi euh, wéyal jàll ci beneen ponk damay ñëwaat ci beneen boo xam ne bu am solo la aussi ndax njariñ la dafa bari mu di tawféex njurul bëgg naa ñu del si ci boobu mu ngi faj si malaat mu di juróom-benni feebar yoo xam ne ni moom lay dëxëñ pour faj ko bismillah ci boobu mooy tawféex njurul tawféex njurul lu tax ñu def ko mhm. moom sunguf la mhm. mais amul tamit benn effet secondaire même borom njurul mhm. amul benn effet secondaire tarkal la waaw waaw amul benn effet secondaire lu wér jigéen donc ki tollu diggante moo ko mëntu jël ah. day baax ñu leeral maanaam ki tollu diggante. waaw ki ëmb. Mhm. mënul jël borom jur. <sighs> loolu leer mag ak ndaw ak ñëpp dañ koy jël. tarkal parce que li tax ma koy leeral. Mhm. appel yi dafa bari. waaw waaw lu wér. te appel bu ñu baree. Mhm. doo mën a leera ku nekk léegi da koy déglu ba mu leer la. nga xam lu ñu wax. boo ñu wooyee ni ñu am na amu ñun la am na. lu am solo wax la li muy jar. waaw nga jënd bu la jaralee bu la jaralul ngay coupé sa téléphone. macha allah ndax ndax ñi ko ndax borom billaahi wallaahi alazim rawal da nga ci dugal képp koo xam xarit la mhm. dang ko ci dugal waaw waaw waaw bu dee tawfeex borom njurul nag mhm. bi sunguf la dana faj six maladies mhm. li muy faj mooy ndoxum siti hémorroïde waaw day rey ay saan day dindi estomac day yokku kattan day euh, dindi ballottement <laughs> moom six maladies lay faj macha allah waaw waaw ki àttanul borom njurul ci feebar yi rek la yor mën na ko jënd loolu de leer na ndax borom njurul moom dafa seer waaw waaye na képp ku ko jël moom. Mm-hmm. dana ci gis résultat. kon boog balaa ñu avant sax mën naa wan ay audio yoo xam ne. Mm-hmm. bismillah. Mm-hmm. gis nga nit ñi dañuy woote rek. xanaa ñu may rek ba émission bi pare appel yi mu ngoog tarkal waaye waaye borom juróom. ñi koy jël kenn xamunum toll. waaw léegi damaa bëgg. kii ma laa bëri tarkal macha allah. Euh, kooku mooy Serigne Saliou Mbacke borom julul ajër comme niñ koy waxee saa su nekk mu am yum leen tegal ay seede la naam euh, du ko bëgg ndax euh, nit ku nekk de bëgg na ni ñu jëflanteeg moom audio leen di tegal waaye du leen wax tur bi euh, bisimilah sëñ Saliou du fekkee ne pare nga. waaw dañuy bëgg rek maanaam lu leen leer. Mhm. nga xam ne kii nii fu ne. Mhm. waaw mi ngi nii fu ne kii jënd ko. Mhm. mi ngi Espagne. waaw du ma wax turam. waaye déglu moom avant mu koy jënd. kon daal xam rek ndax bu ñu la ko yónnee balaa le 19 bi incha allah parce que GT bi le 19 la war a tourné ndax sub mhm. asalaamaaleykum sëñ Saaliw ñu ngi ziar naka yittey naka liggéey bi ba lépp tawféex alhamdulilah waaw man de Assane laa tudd Assane Diop waaw. Mhm. am sama benn waay nag bu ma toogaloon daal doon jàmbat sama biir beeg yooyu mu may wax ni dafa jundoon ci yaw garab bu baax bët ki démb rek waaw la ci jot sax maa ko booleeg GP bi ko indi. Hmm. waaw góor a mbay la tudd. waan ma garab bi moom waaw luñ la ci wax rek des na am na loo xam ni sax mënuñu la ko cee wax ndax daal lim ci wax yëpp a ngi ci. Hmm. waaw ma bëggoon ci nag ma ne tax ma ni woon xaaral ma xool nu may jokkoo ak yow garab bi sax yàgg naa ko gis ci zaal youtubeur waaw te amoon naa ci yaqin parce que zaal moom wóolu naa ko wóolu boo xam ni ku ko gis xam ni ci côté askan bi la mhm. kon bu doon lu du nekkul lu weer daal du ci nekk di ci yaakaar naa du ci def publicité ndax alal waaw far nag yàlla dogal sama xarit bi may àndal fii sama xarit intime su su ñooy nekk waaw moom it mu jënd ko daal gis ci ay macha allah taw tawféex mu wax ma ko nag ma ni ko xaaral dina jox ma numéro bi ma woo ko waaw ndax garab bi man yàgg naa koo dégg daal waaw te bëggoon nañ ci nag bëggoon nañ ci ndax waaw ñu bëggoon daal xam rek ndax buñ la ko yónnee balaa la 19 bi incha allah parce que GP bi la 19 la war a tourné ndax suba di ñu ko mën a joxal GP bi ñu dugalal la xaaj bi kay léegi balaa comme ça nga mën ñu ko yónneel suba incha allah. Mhm, macha allah mhm. waaw waaye nag liñ ci yor. Mhm. kenn xamul nu mu toll. dañuy faj nit. man naa wax nag <laughs> mais man duma wax nit mu vidéo pour ay témoins mais li ma faj mhm. barki seexul xaddim mhm. war naa ko ci yàlla mhm. kenn xamu nu mu toll allah allah tawfiix la ñi ma faj la am na ñoo xam ne dañuy jóge bitim réew ñu ñëw fii seen soxna yi ñoo leen di wax da ngeen di taxawaalu mun leen déedéet stress ak liggéey ñoo ñuy jàpp waaw am na koo xam ne mi ngi fii moom tamit mi ngi dëkk jas euh, waaw demoon na ba xam ne daa hmm. découragé woon ba fase ay soxnaam oh. mais jëliwaat na soxna si ngir borom njur waaw wër kenn xamul nu mu toll ñi hmm. koy jël nag laax kenn xamul nu mu ba noppi dañ lay woo hmm. boo woote woon ci cabinet ñoom ñi seereel la ni leen di woo di leen sant kenn xamul nu mu toll taw feex la te garab gi képp ku ko jël da nga ko jël siwaat am na ñoo xam ne dañuy faju ba pare sax ñëw di ko jël siwaat ngir gën a porter seen bopp wala ko wax waaw ah. tarkal la moo tax nit lépp looy def rek na leer na dëggu na tegu ci xam-xam. loolu rek moo parce que lu teguwut ci xam-xam. Mhm. du publicité boppam. waaw lu waaw jërëjëf jamono ji daa toll ñu nekk ci média euh, faaw nga publicité mhm. pour nit ñi xam mais buñ xasee xam jarut du publicité mu ko waaw jërëjëf daal mhm. lu wér moom mooy publicité garab gi lu bari mooy borom njurul mhm. yàlla na jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou Mbacke borom njurul jërëjëf ci xam-xam ci leeral yu am solo yooyu aja naa leen fii kuñ fi dala rek dañuy bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di jëriñu saa su nekk aja damaa bëgg nga ñëwal ma ci garabu jabet bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey mu di garab bu am solo ñu di koy wër si ci yow saa su nekk garabu jabet bi garabu jabet bi dañ ko tooy dugalaale ah. mm-hmm. xam nga donte borom jurul day fajaale jabet tension ah. mais bii jabet kese lay faj mm-hmm. maanaam da gis garab yu bari dañuy calmer jabet ah. nebedaay waaw day calmer jabet macha allah garab yu bari man naa ci lim lu bari mën naa ci lim fukk man sama mm-hmm. yaay saalum saalum la sama pap moo sant Mbàkke di bool bool waaye sama yaay saalum saalum la waaye mm-hmm. satub suñ bàmba sall la nag tarkal la ay ñun man côté papa côté yaay yëpp mm-hmm. bàkkuwuma waaw mm-hmm. mais xam naa fi ma jëm ndax jikko rek la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy tàggee nit ndeysaan lu wér waaye garab bi day faj jabet day faj jabet bii ah. day dindi jabet ba mu jeex tàkk ak degré bu mën a toll ah. waaye moom jabet kese lay faj ah, jabet kese lay faj waaw waaw sunguf bii day faj jabet kon mu kooku bii mooy faj jabet waaw waaw calmé ko mm. dafa ko dal da koy faj macha allah jërëjëf acca ñu dox ba léegi wéyal ñëw ci rab rab nag xam naa sa mbokki sëriñ si sonal nañu rab yaa ngi gàllankoor la mën a yóbbu nit ki lu mu ko mën a yàqal man aw may rab mm-hmm. aw may jindi mm-hmm. mais dama koy faj ah, da koy faj waaw tarkat la ci balaa ñu koy faj faaw ñu xoolal la ba pare mm-hmm. lu am solo buñ la xoolee ba xam ban façon rab la parce que rab yi dañoo bokk ah. benn euh, ah. Euh, mën na di euh, balaa muy fer rek. mën hmm. na am soixante cinq ans wala soixante dix ans war a fer. moom rab rab. waaye am nañ ci xam-xam boo xam ne. Hmm. liñ ci xam am na lu ñu ci xam. waaw lu koy dindi. amoon neen maam yu koy faj. jox nañ ci sekk yu koy faj gëstu nañ ko fu ne. Hmm. ba am ci lu ci wóor di ko dindi. ci ki nga xam ne rab da koo gàllankoor ba mëntu sëy. waaw wala ki nga xam ne rab da koy da koy téye yàqal ko bëgg yàqal ko njabootam ak addunaam ak yëpp. buñ ci xool ba xam ko. Mhm. danañ xam rab bi ban dimension la ak nu mu toll ñu dindi ko. waaw waaw tarkal waaw waaye daal aw ma jinne waaw pour mu leer ma rab. leer na <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ Saliou acca ñëwal ma ci sa fas gi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy waxtaane ndax njëriñ li li ci dëxañoo ci biir dafa bëri kaar macha allah amygdale bi ñëwal ma ci fas boobu fasu amygdale daal mhm. ndax maa ngi wax sëñ bi sëñ maa ngi ko door dégg ci yow <laughs> daal comme genre enzyme la. waaw ah. waaye fas bi feebaru baat. ba ci hmm. goitre lépp da koy dindi. Hmm. fas bi fas bi hmm. genre euh, bépp feebaru baat bu nekk sa yaram. waaw da koy dindi sama soxna soos. da koo daloon. genre enzyme da ko doon sonal ba mu ko fasalee la ñetti fan ak nu mën a mel. donte dañ ko opéré ba mu ñëwaat. waaw wala opéré guñ ko. da koy dindi loolu tawféex la. boo ko fasee ñett tàqalikoog moom. waaw waaw jaajëf. yii nag moom ay affaire jat la. mu kook waaye nag jat tamit. ñu uh-huh. yónnent bi moom da di xool. Euh, ba xam baat ya am na bokkaale boo amee bokkaale. Uh-huh. bu leen ko utiliser boo amut bokkaale nag. Uh-huh. ngeen xam ne lu dagan la. macha allah. te booy commencé da nga naan mi miji sàlla miji sa nabijun bisimilahi maarem salaali mohamad waalaali mohamad buri buri xam nga yooyu mhm. am na fi nga ñekk commencé rek mu ñekk dagan mhm. ba noppi ñuy gëstu baadi amul benn baatu bokkaale mhm. moo tax mu ngi noonu acca euh, kook mooy Serigne Saliou Mbacke jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yi acca ñu njëkkanteeg waxtu wi ñëw ci actualité comme ni ma koy defee sax su nekk mu di xew xew jamono dañuy njëkkee ci euh, politique bi ak ni muy doxee rawatina président Ousmane Sonko mi nga xam ne mu ci nungu si ba léegi gis nga keroog euh, coowam leeg waa CEDEAO gis nga fi mujje ñu ngi ci nëggandiku ba léegi toog kenn xamut ni waa nent di mujjee ki gëtam waaye élection yi dina bokk wala du bokk ba léegi bokk na ci li nga xam ne ñaa ngi koy waxtaane mu doon jafe-jafe ci ñoom bëgg naa ñu jël siwaat ci politique bu président Ousmane Sonko ni muy doxee. waaw man moom samay vidéo yëpp ci wàllu élection moom. Mhm. ci wàllu cadre Sonko. Mhm. Sonko daal li yàlla li li liñ gis ci Zahir. Mhm. li yàlla maye ku ne xam na ku yàlla may la. <laughs> waaye nag da ngay dégg koo xam ne day jéggi wax dëgg dem wax leneen lu mu xamul. waaw ah, da dégg ku naan wàlliw la dégg ku naan nàngam la <laughs> Ousmane Sonko mhm. nit ku baax la ah. liñ gis mhm. ku sell la mhm. waaw te li ko yàlla may ci eh, eh, géopolitique mayu ko kenn loolu ñëpp nangu nañ waaye cadre wàlliw la ak du wàlliw wàlliw nit mënu ko seereel nit waaw wàlliw ndeysaan seereel ko ah. ki ki nga xam ne ñëpp mhm. xam ne ni wàlliyu la wala wàlliyu mhm. quoi xam am na ñoo xam dañuy xam ne cadre ni wàlliyu leen waaw waaye Ousmane ko mhm. nit ku baax la nit ku baax la daal waaye daal nit moom seereel ko ni wàlliyu la loolu beneen dimension la bokk élection am feneen fii nit di toll ba mën a seereel nit ni wàlliyu la waaw waaw waaye ñi ma gis nii sama mbokk yi nga xam ne waxi ko xër la daal nga ko jàppee. waxi waxi xëy na waxi xër ak yooyu noonu moo ci jàpp. waaye daal mu ngi noonu. mais nit ku yàlla baaxal la. Mhm. te mosuñu gis politique sain bu mel nii mosuñu gis jëmm ju mel nii ci politique. tarkal la waaw te nit daara yi daneen dal. Mhm. ndax mosuñu am ku mel nii. tarkal la mm, politique sain boo xam ne ñun ñun ñun nit daara. Mhm. dañuy bëgg politique sain boo xam ne bu ñuy wàccee alxuraan. waaw ñun moom mu ñëw dugg suñu biir wàccee alxuraan. bu nit ñi di julli juma. wala mu ñëw sax jiite jumaa ji. tarkal la ñun de wala mu ñëw jiite julli gi. loolu moo tax suñ xel dal ci Sonko ñu bëgg ko ak cofeel goo xam ne mënuñ koo wax kenn ndax hmm. ndax loolu moo moo nekk ci moom politicien boo xam ne hmm. ndax damay dégg des fois mu wax alxuraan waaye hmm. alxuraan ju set lay wax ju set la waaw kon kooku mën na wàccil boppam kaamil ñun ñun président boobu lañ bëgg loolu moo tax ñu bëgg Sonko nekk président am na solo tey ba tey weesoo gut ndax yàgg naa ko wax Ousmane Sonko moom ba nii may wax ak yow. waaw mën na nekk candidat incha allahu rabbi. mën na nekk. waaw mën na nekk de. Mm-hmm. yàgg man samay vidéo yi. dama ne. man waxuma nekk mm-hmm. candidat dama ne. Mm-hmm. sama vidéo yëpp. dama ne Ousmane Sonko bañ ko jàppee ba léegi buñ ma laajee loolu laa leen wax. nekkam candidat. weesoogul weesoogul. ak yàlla ba tey ba nii nii nii nii. Mm. Sonko yàlla mën na dem. réew di gën a jaxasoo ba léegi nii nii. ba nii nii laa mhm. Ousmane Sonko yàlla mën na def mu nekk candidat. tarkat la Ousmane Sonko ay mbiram. Mhm. yàlla rek ko xam. cey génnam ci kaso bi ndax gis nga ko wala gisagoo. gisuma ci dara. dara laa ci gisu seetuma ko sax mais dama ne. Mhm. ci ci Zahir. yàlla mën na def mu nekk candidat. Ah, te ay mbiram. dafa baatine trop moo tax man Ousmane Sonko ay mbiram moom. damay wax li nga xam ne lépp dama koy bàyyi ci loxo yàlla de ba tey mën na def mu nekk candidat. <laughs> kooku moom boo xoolee. Macky Sall la façon mbir mu ne def na ko euh, cour d'appel mhm. bi nga xam ne moom lañ moo waroon a atte mhm. mos ngaa euh, ñi fay atte ñëpp ay ay professionnel waaw am na ko ci bàyyi loolu mosul am lu ko bàyyi loo noonu lu ah, xew ah <laughs> ma bàyyi na daal waaye xaw ma lu ko li tax mu bàyyi xaw ma ah. mais bàyyi na <laughs> démissionné na bàyyi mm. waaw karkar la nga xam ne Ousmane Sonko daal ay mbiram Macky Sall da cee waroon noppalu <sighs> maanaam ci gàttal. Hmm. da cee waroon noppalu xam ne lii moom mbir yàlla la. tarkal la waaw. mën nañu yàlla mënu ci dara li yàlla dogal ala kulli xaal day am. Hmm. bu yàlla tuddee ci moom président. Hmm. kenn mënu ko nekk tee nekk président. <laughs> mi ngi mel ni wërsëg rek li yàlla tudd ci yow wërsëg. noonu la demee wërsëg nit mën na ko wut lu ko yokk mën na ko yokk ndax yàlla moo ni ñaan leen ma ma may leen. adduuni astajib lakum hmm. ba noppi da ngeen sant ma doole la sakartum laa si danakum waaw kon noonu la wa fi sama risque hmm. wa maa tuadun tarkal wërsëg yi la yàlla bindee hmm. ni la dee di dàqee ah. lu ko raw la la wërsëg di dàqee noonu la mel nekkam ci kaso bi ba feek muy génn baa gisaloo ko ci benn jafe-jafe gisaluñ ko si benn jafe-jafe Ousmane Sonko moom tawfeex rek tawfeex rek ndax moom léppam nuuraani la lépp a leer kaso neexut de sëñ bi déet euh, bu ko da koy def na këram rek dara neexut adduna sax moo neexul. adduna hmm. sax neexul. dëgg la euh, APR mën nañoo am dara ci yi ñuy dëgmal. waaye gis neen candidat yi bari neen man li ma ci yàgg wax mooy candidat yu bari duñ dem. ndax dégguma si bari candidat yu bari duñ dem. Hmm. comme lu tax duñ dem dañuy dañuy dañuy xaw a business bi moo moo tax. <laughs> daa bëri business ba noppi ñu si bari dañuy business. ñu ci bari dañuy business. Hmm? am na yoo xam ne moom kenn du ko wax waaye ñu bari daal dañuy business maanaam ñu si bari duñ dem waaw takkal bindal nga téye ñu si bari duñ dem waaw dañuy business rek wallahi tarkal ñu business rek waaye ku ci mel ni Karim ay Déthié ñoo ñu dinañ jàll ba ci. Ah, ñoo yàlla yàlla mën def ñu. Babacar ñooñu taxu may wax waaye dafa bari kandaa yow xam nga ñaata. Uh-huh. bari na de. bari nañ kay. waaw moo tax ma la ñu si bari duñ dem dafa am Sénégal lu jóg rek dañ ci business. lu jóg. Hmm. dañ ciy business. jërëjëf acca ñu jàll ci beneen cas mu bokk ci sport bi waaye ci làmb ji la bi yoon hmm. ñëw ci làmb ji dox ci diggante Lac de ak kii di Siteu gars nag liñ bëgg a xam lenn rek la dul lenn nag discours bi waxtaan bi lu mu gudd gudd jël bi lañ bëgg a xam fu muy féete kii daal sëñ bi ah. làmb man duma ci wax déet waaye sëñ bi làmb hmm. wu ma bëriwu ma aw ma mbër. ñaanal rek ngeen di def ñaanal. ñaanal lu ma ci kenn ñoom. Hmm. <laughs> waaw. sama yoon nekku ci ñoom. Hmm. la def ñoom la bu dee gis neen ni dagan na. Hmm. ñoom la bu dee gis neen ni lu la ñoom la. leen ko haraamal du leen ko daganal waaye ñoom xam neen li ci nekk. waaw loo wax ci Siteu ak Lac de Guiers. waaw yàlla na leen yàlla may ndam rek ñoom ñëpp. ah ndam kay xanaa kenn. kenn koy am waaw ah. may laa ñaanal. foo ko gis noonu. ah fan nga gis ndam li. fan laa gis. ndam li gisuma ko fen seetuma ko sax. ah niil nga gis. gisuma ci dara. déet dama ne dugguma ci ñoom waxuma ak ñoom gisuma ci dara. looy xalaat ba tontu woo ma. lan ngay xalaat ba tontu woo ma. xalaatuma dara man. Uh-huh. Serigne yi uh-huh. kenn du ko vaar. parce que man du ma wax lu ma xamul. Hmm. du ma def lu ma mënut. la moo tax kenn du ma waar. Hmm. xaw ma vaar xaw ma waar. amoo kenn koo ci digal ay sarax. déggoo li ma la. ma kenn ci ñoom. déedéet pour nga may ko ko ni ñu lay seetaan ni nga jàllale ko. jox ma ci kenn sarax. Ah, ok diguluma ci kenn dara. Mhm. waaw yooyu yëpp ay yëfi dóor la ay sarax yi. Hmm. ay làmb doy wëlbati lu yàlla ah. dogal moom. waaw ah. <laughs> dogal na ko ba pare. <laughs> kon jërëjëf ñu bala nga tàggatoo. <laughs> ku yàlla ku yàlla ki ci yàlla may ndam daal. Mhm. na ko ndamoo kiñ daan. mu muñ xam ne. Euh, daan yàgg naa daan doomi jàmbur. loolu daal laa leen digal. <laughs> d'accord nga li gars yi day wax li ci ëpp. leneen 80 pour cent yëpp Lac de Guiers lañ ko jox de. ñoo xam de. Ah. man xaw xaw xaw ma ci ñoom dara. Ah, d'accord nga. d'accord ma ci len ah, jërëjëf ñu bala nga ñoom moom. Mhm. maa ngi leen di ñaan daal jàmm ñoom ñëpp. jërëjëf sëñ Saliou di ñaanal ñi nga xam ñu ngi ñuy déglu jàmm. yàlla na yàlla defal jàmm yéen di ñaan site bi nga xam ne site bu baax la di di di di. 221 people waaw 221 mhm. euh, people. Mhm. di surtout askan wi yàlla na yàlla defal doole. amiin amiin may leen. Mhm. li comme ni ngeen ko bëggee lu kawe seen njort. may leen sax lu ngeen foogewut ndax dee leen ko ñaan yàlla. amiin ndax yàlla. Mhm. ëllëg boo koy ñaan da koy ñaan lu weesu lu kenn amut fi parce que lépp loo koy ñaan ma nga fa tege. Mhm. wala la ëpp ma nga fa tege lépp lu may doomu aadama. lu ëpp loolu ma nga fa tege. yàlla li may. li may ñëpp bu ñëpp dajee woon. tollu ku nii. waaw mi ngi mel ni nga dugal dugal euh, puso ci géej géej yëkkati mhm. waaw wala yaa waaw waaye du ci du ci du wàññi dara yokku ko dara mhm. bu ñëpp baaxoon ni yonent bi salaay salaam yokku ko dara mhm. wàññiwu ko dara bu ñëpp bonoon ni firawna iblis sax wàññiwu ko dara jërëjëf yàlla moom faxul li maa yurit waaw mooy def lu ko soob loo ko ñaan rek mu may la ko kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant wa aqiru daxwee na alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf kon maa ngi yëgal ñëpp bis boo xam ne sama bés la sama mbokk sama xarit sama mag sëriñ Basiiru Mbàkke imam mu sëriñ Moustapha Mbàkke imam sam euh, dimanche samedi samedi le 23 décembre samedi le 23 décembre ñu ngi koy amele fii West Foire maa ngi ci woo ñëpp di ci woo bépp jullit di ci woo bépp taalibe ngeen ñëw teewee bis boobu bis boobu sama bis la maa ngi ciy woo ñëpp sëriñ Moustapha Mbacke imaam mooy waajuram sëriñ Moustapha di euh, sët ci maam Mor magi sëriñ Touba kon kooku bisam suñu bis la ñun ñëpp ndax suñuy mbokk la tey sëriñ Moustapha léppam sëriñ Touba la moo tax sëriñ Moustapha moom kenn yewut ko ci dara lu dul ma ngi ca jàkk ja ma ngi ca ma ca daar ja ma ngi ca tool ya mooy mooy waajuróom kon sëriñ Basiiru incha allahu rabbi sa bis bi suñu bis la ñun ñëpp ñu ngi ñu ngi koy yëgal ñëpp na fa ñëpp teew euh, samedi la euh, le le euh, le 23 décembre maa ngi koy yëgal ñëpp na ko ñëpp ñaanal tamit mu yàgg fi loolu te wér jërëjëf Mbàkke